Actubuzz SNTV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak suñu chaîne bi di leen wax nag ngeen abonné ci chaîne bi door xibaar yi dooree ko ci Marième Faye Sall Marième ne nii ma si doon fecc kii nag di Marième Faye Sall jamono ji vidéo boobee nga xamante ne nii si la doon fecc jamono ji vidéo boobee mooy def polémique ñu bëri ñu ngi si wax di wax ni nag kii di Marième Faye Sall lam si def du dëgg du yoon parce que moom mi di Marième Faye euh, Sall dafa war a xam ni moom mooy première daamu Sénégal ba pare teg ci tamit moom mooy ki nga xamante ne nii moo di jabaru président de la république kon yenn yi waru ko moom mi nag di Marième Faye euh, Sall ab xew la woon xew boobee nag euh, frère am Adama Faye moo doon takkal doomam moo doon doomam moo doon takk li xamante ne nii moo di jabar kooku nag di Marième fay Sall daal dem ci xew boobee bongomaan yi di ko tëggal muy fecc ki nag di Marième Faye Sall ginnaaw vidéo bee bi nga xamante ne nii jénn na nag ci internet bi ñu bëri ñu ngi si wax ni kii di Mariam Faye Sall loolu waru ko ñu jugee ci loolu nag daal di dem ci Sadio Mané Sadio Mané nag ginnaaw bi nga xamante ne nii ñu bëri ñu ngi koy laaj ndax lu tax yow Sadio Mané nga simple ginnaaw bi nga xamante ne nii Ghanéen yi ñu ngi ko doon laaj loolu nag kii di Sadio Mané dafa dal ci kaw Ghanéen yi di leen xamle ni man man mës man dama nekkoon nit koo xamante ne nii aw ma woon dara yàlla dogal nag ma tekk ci fu football bi yàlla defal ma kon nag su ma amee du ma fàtte sama démb man mi nag dama doon football te aw ma sax daal yoo xamante ne ni moom laa doon footballee ay dàllu façon dàll bu ne footballee naa ko kon nag su ma demee ba am damay xool lu baax baax a baax sama xaalis fan laa koy dugal ak fan laa koy investir su ma mënee dimbali ñi nga xamante ne ni ñoom laa war dimbali ma dimbali li leen te loolu mooy sama priorité comme ni ma koy defee di tabax li nga xamante ne moo di ay hôpital di njëriñ sama réew man loolu mooy sama objectif waaye nag sama objectif du nekk loo xamante ne nii damay yàq li nga xamante ne nii sama xaalis loolu nag kii di Sadio Mané El Niancho moom moo xamle loolu ginnaaw bi nga xamante ne nii nag ñu ngi koy laaj lu tax kii dafa simple trop trop moom mi nag di Sadio Mané moo xamle loolu moom nee na li ko tax a jóg maanaam jàppale ñi nga xamante ne nii moo di jaami yàlla yi waaye nag du lenn loo xamante ne nii nag da koy def di jéem a wonewu wala dara lépp da koy def ci simplicité rek du nekk ñoo xamante ne ni dañuy yàq seen xaalis di jënd ay téléphones yu seer a seer a seer ni ki noonu nag kii di Sadio Mané moo xamle loolu bu ñu jugee foofu nag dem ci mbiram politique kii nag di Pape Diop ginnaaw bi nga xamante ne ni transhumé na dem na fële ca benn bokk ñu bëri ñu ngi koy attaqué ku ci mel ni nag kii di Clédor Sène ñu bëri ñu ngi naan bett nañu ko kii nag di Cheikh Bara Dolly tamit àdduna ci di xam ne ni daal en tout cas ba na leen bu baax a baax a baax ko li nga xamante ne nii def na ko.